waa liñ ci mën a indi rek lenn la parce que rumeur yi ci planning bi moo ñu sonal tey jii li dugal planning ci wàllu santé defe naa ni santé la reproduction mooy espacement des naissances espacement naissance na bu ñu ko waxee dañuy wax ni sorianteel njur la tey bu ñu nee soriante njur bu njurukaay bi la ñuy noppal parce que moom moo jur kon planning bi li ko ci dugal mooy mucc bokk na ci mucc sax ci feebaru cancer kon ndax bu tunjurukaay bi kon du mën a mucc ci cancer léegi nag dafa am lu ci am ñuy wax spotting spotting ci sage-femme yi ñuy faj ñoo ko xam mooy ñun jigéen ñi ñu ngi ko tuddee bu ñu defee planning di gis suñu mbaax dafay yàgg lool di def ay tokk-tokk ba fukki fan xam nga boobaa néegu sëy ba xaw a yëngu ñu ni ñenn ñi ñoom duñ ci gis seen baax dañuy jàpp ne deret bi mu ngi taaj ci naq bi tege fa lu leen métti rek loolu lañ koy jiiñ loolu la ñu ñëwoon nag pour leeral ko xam ne ki ci gisul mbaax dañuy xam ne nen règle nen la rek bu waroon tuuru ñëwul ndax méthode bi nga def moom moo ko tëj foofu noonu beneen bi ñi ciy gis mbaax tamit loolu noonu day am fu muy toll sax l'islam wax na ko nekkatul sobe mais jafe-jafe la rek bu am ci entre sa yaram ak méthode bi ñu la defal léegi nag su ko defee loolu ñu mun ko xam ba nga xam ne boo ko ci gisee di nga ko mën a supporter wala nga dellu ci fi ñu la ko defale woon ñoom am nañ saafara dinañ la ko saafara ndax rumeur yi bëri na lool ba ñi ko ragal ñu loolu moo tax ñu ragal a def planning moo tax tamit ñu ciy dégg li ñu ciy dégg waaw parce que xam nga rek li ñuy wax jigéen dafa am ñaari période muy période nawet bi ak noor bi nawet bi ñu ni mooy bi nga tolloo ci ëmb ak wasin di gis mbaax di jël grossesse di accoucher noor bi mooy bi nga xam ne kat dangay toog lu war a mat ay ñaari weer ñetti weer doo gis mbaax ba nga toog at gisatoo mbaax léegi foofu ñu ko wax période ménopause sunu yaay ñu toll ci ak sama classe gi ko xaw a jege tuuti ñoom nag loolu dañ koy bàyyi ak docteurs yi parce que ñoom seen xam-xam la boo leen paree bu ngeen leen gisee ñoom dinañ ci mën a ton mais wax ne ñi nga xam ne ñu ngi paree gis mbaax ñu ngi paré ci bayyi mbax muy période menopause ngay jëm mag da nga am lu ñuy wax bouffée de chaleur mu yaram day jéggi sa tàng jër ngay ñàkk te doo xam lu lay tàngal man nga jekk tamit xaw a am naqari dara tuuti mais dina indi aussi ay métit ci naq beeg yaram beeg problème arthrose yi mais bu boobaa dañ leen di conseiller ñu dem ci sage-femme bi leen gën a jege parce que ménopause aussi tuddul ni tollootuma ci am bagoo sin waruma gis ko wala ma gis sama sage-femme danga nga a dem jigéen kër docteur di gis sage-femme yi wala nga gis ko bi mooy boobaa moom it dina la mun a teg ci yoon man la saafara li nga xamante ni moom nga soxla